salaamaaleykum salaamaaleykum boo leen ñu fekkee fii tey ñu taxaw ñu ngi fan ñoo ngi ci géeju Pikine gi ah tey kan la ñu fi seet si ndaanaan champion ki nga xam ne nii moom la àdduna bi yëpp di wër boo tuddee ko nag waa Pikine gi yëpp xam ki nga indi kan la mooy kan booy Jules Boy Jules la ñu ñëw seet si ànd ak moom fii ci géeju pikin gi tey ànd ak waa Pikine Falaye balde gi yëpp Pikine Falaye balde ki nga xam ne nii fa la ndaanaan yi bokk mbër yi bokk fa ñi nga xam ne nii tey ci lamb ji ñu passé ñoo jël vainqueur arène bi émission bu mag bi la fi ñëw tey seet ko mooy taaru làmb taaru làmb nag bu ñu ñëwee tey jii fii ñu xam ne tey ñëw nañ fi ñu war a ñëw xale yi ñëwati nañu nañu daan def la ñuy defati na woon fa woon ñawoon ña ko fekkee woon rek ñoo koy baaxee acca Modou kan la ci caméra bi Laye kebe la ci micro bi ñu ànd ak suñu stagiaire Mame Diarra Bousso di ko ziar bu baax a baax wow daab acca moo ñu dem topp ma si biir maaleykum salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi seetaan GR Info TV tey jii ñu ñëw fii ci ci Pikina ah, tamit ci géej gi la ñu toog nii jàkkaarloog benn ndaanaan champion Boy Djilan ki nga xam ne nii lamb ji bi muy tëj tey jii moo ko tëjaale ak ndam lu neex a neex a neex tamit ah jël jum deux paqueté ko wàccee ko tamit dem nekk ci leneen mooy ndaanaan bu mag bi tey moom la ñu ñëw seeti si salaamaaleykum Boy Djilan maa ngi lay jaar. maaleykum salaam laay mu lay jaar bu wër di la bëggee waat ah, di la jox sa wàccuwaay. di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba wa di sant wa Pikine wa Martin Marseille surtout wa Ikri Fallay Balde di ñaanal suñu papa Zil Balde Yalla ko fi yàlla bàyyi mu fekk suñu njëriñ ci bark Seydina Mohamed di sant suma yaay bu baax di sant suma yaay di sant sama Serigne Serigne Cheikh Fall mbokk ñu gis année bi passé la saison bi tej nga bëree ci fin de saison bi ñu gis tamit sa combat jeex rek ñu taxawalat benen combat nga nek ci waajtaay ni ni ni ñu ñew seet ci la kan ngay wajal waaw waaw ñun moom làmb lañ am xam nga rek ñu ngi waaj fourrière incha allah vingt cinq di ñaan yàlla yàlla may ñu ci ndam ci barke Seydina Mohamed. naka ngay waajee fourrière. waa comme ni ñuy waajee rek comme ni mbër di waajee rek waa ñoo ngi ci entraînement yi wax dëgg yàlla parce que ñun moom dañ naan sax entraînement mooy suñu liggéey ndax bu gaa yi di xëy ñu ngi ci entraînement yi kon ñun daanaka noppi nañ rek dañuy ñaan yàlla yàlla mottali liste rek. Uh-huh. date bi kañ la. date bi le 25 décembre inshallah le 25 décembre lamb ji kan moko teug lamb ji Baba jaw moko teug wa ñu ci wo wa Pikine yeup ci woo sunu suñu pap yëpp ak ñu ñoo Pikine kilifa yëpp waaw. Pikine Falaye Baldé jël ndam lu mat ci lamb ji arène bi kii nii passé saison bi passé ngeen dundé ko nan. wa wa lolu mom tay ji dañ nan du du du du ndam ci ñun quoi manam yag nañu am ndam yu dàq yoy moo tax ma du ndam ci ñun. parce que lolu moy lolu moo ñu war. parce que des na yeneen tey jii duñu duñu ndamu duñu baaxu parce que des na yeneen yoo xam ne ñu ngi ko war a indi incha allah kon dañuy gën ñaan li suñu borom mu gën ñëw defal tawféex rek di santaat yàlla bu baax na moom mi ñu ko jagleel mhm. kon daa mel ni tey 200 pour cent Pikine bi moo gën a taxaw sax Pikine Falaye Baldé parce que dafa mel ni moo ci ëppale woon ay combat ci saison bi. waaw noonu la demee 200 pour cent bi gars yi taxaw nañ ci bu baax a baax parce que Pikine moom xama rek lépp benn la. waaw moo tax mu demee noonu tey jii Falaye Baldé booy Niang ak beneen écurie ba ci yëpp ku ci am rek mel na ne écurie yëpp am 200 pour cent bi en tant que doomu Pikine naka nga koy dundee. waaw mais kontaan rek sant parce que gis naa ni gars yi di taxawee te man loolu dama ko dama ko yàgg bëgg. Mhm. te gis naa ni ci gars di taxawee kon du ma def loolu kontaan di ñaax gars yi rek gars yi ñu gën a ñëw jàpp si xam nga jàppale suñu bopp ñun ñëpp. Mhm. na ku ci ñëw rek sa bopp nga jàppale. Mhm. ñu taxawu la sa contre Dioup 2 ñu gis deux cent pour cent bi yëpp gis Sokh gis Ama balde gis booy Niang gis ñëpp ñëw taxaw ci sa ginnaaw. sa gars yëpp ñëw taxaw ñoom Sago Papa Baldé gis gars yëpp ñëw taxaw ci sa nga ñëw yëngal noonu noo dundee bis boobu noonu ak lamb ji naka nga ko dundee. waaw waaw dëgg yàlla waa écurie Fallay laa ko que wax dëgg yàlla dañ ma doon ñaanal yàlla nga am combat yàlla nga am combat barke ko Touba ñoom laa ko bëreel parce que gis naa seen taxawaay billaahi loo xam ne nii xama diw day ñëw indi ay butéelam dem fu nekk ñëw pour nga daan kon loolu nit koo ko amoo fayam kon man damay sandal waa écurie Fallay bu baax ñi ci am combat ñëpp yàlla defal leen ndam ñu ci amagul combat yalla may len combat ci barke sayyidina muhammad di ñaan amu balay yalla may wax ndam bu wër ci kaw Gris bordo tamit wa amuñu lu dul contentement dal wax deug yalla wa sant yalla bu baaxa baax bis bobu nga waxon ma ci lu graw nga ne mon da ngay xex da ngay def tangam ak nangam bu nopi ñew mbeur mi taxaw ci xex nga daw ci waloon mom jaxal ci daan ko dem ñëpp waaw non xeex ñu ko lamb bëri nañu ñu indi ak daan moo nu ñor te daan nañ. dañuy est-ce que nekkul ni da nga ko tàppetoon. non ah bu dee tàppet naa ba yàlla doon def ak moom di ko jéem a nax si. lamb moo demee noonu lépp lépp naxante la rek. nekkul ay affaire de jàmbar affaire de affaire yooyu noonu lamb moom ku yàlla tàccu rek moo ñu war lépp ñoo waaw ragal amul waaw dañuy santaat dafa doonoon suñu bés rek. ñu koy sant bu ñu santaat yàlla bu baax de di encouragé jumte tamit. saison bi tëj tijji démb lambu am. ñu gis stade bi ak ni mu mel naka ngeen dundé saison bu tejj bi naka ngeen ko doon dundé yene ngi won ci entraînement wala da ngeen doon di nelaw non ñun mom ñu ngi ci entraînement parce que yaakaar naa képp ku yor sa place da ngay ñaan yalla muy jaay chaque jour di ibi chaque jour kon ñun bu mhm. lamb tëjee tay tamit gënaluñu buñ sañoon lamb ji day def xama mhm. nee yépp du tejj ben yoon mais nak ñun mom l'essentiel ñu suñu liggéey nak ñu ngi dem di jënd marchandise bu jaay manam ñu ngi entraîner bu baax di xaar làmb am mhm. waaw jeex na tàkk nag noonu la demee tamit ah nga waajoon combat bu rëy ñu génn ci komba boobu nga nekk actuellement di waaj beneen komba tey jii naka nga koy waajee ak kañ la ak naka la ak fan la. waaw waaw ji ñu ngi koy waaj bu baax ah ànd ak sunuy mbokk sunuy sunuy xarit ku ci mel ni Ousseynou Mané Vito xam nga mhm. ñoom Zil Zil bu xam nga Zil bu ndaw. Mhm. ñoom sama doom day xam nga ñàkk caaxaan bu Ikri Fallay Balde. ñoom Zilo ñoom xam nga Boy Balde. moom it na ko gars yi jël Sarli. gars yi nañ leen jël si. Mhm. comprendre nga ñu ngi koy waaj bu baax ak ñoom ah, ak waa Pikine. ak sunu papa Zil Balla ñu ngi waaj bu baax a baax di ñaan yàlla yàlla defal ñu ci ndam. Mhm. di ñëpp le 25 décembre incha allah arène nationale. Mhm. noonu la demee. dafa mel ni yéen ñi bëri woon ci saison bi yéen ñëpp amaan ngeen combat. waaw waaw ñun ñëpp amaan nañ combat ah. waaw xaaj yëpp amaan nañ combat ku ci mel ne comme leng si nii moo amagul combat ak Boy Baldé ñoom Zil bu ndaw yooyu noonu ñoom Sarli ak Boy Baldé. waaw di ñaan yàlla yàlla defal leen ndam. comprendre nga. lan la gars yi di xaar ji ñoom dañ leen a ragal wala. non peut-être dafa jotagul rek mais léegi léegi incha allah. Hmm. léegi mu jot bu soobee yàlla eh, yàlla baax na. jeex na tàkk nga nekk ci waajtaay ñaata séance ngay def par jour ak naka nga fas yéene waajale lamb jooju. ah maa ngi entraîné de <laughs> maa ngi entraîné daal li mbër di entraîné par jour maa ngi koy entraîné wax dëgg ñun benn séance lay entraîné xam nga ñun moom. ben séance lañu def. ben séance pour yow doyna non wa yaakaar nako ko combat bi ngay waaj ni mu taw. amul solo ñun ñu ngi liggéey ben séance incha allah. Hmm. Ah. <laughs> benn séance pour yow doy na nii ak làmb ji ngay waaj ni mu toll noonu ah tey jii nag ñu ngi woon si émission taaru làmb tamit ah tey jii toog ak Boy Jules Boy Jules ndaanaan bu mag a mag a mag a mag bu ñu ko tuddee tey Pikine ñëpp xam kan la mais du ma ne Pikine sax dama naan Sénégal yëpp xam kan la parce que ndaanaan la ci li doon Boy ñaata combat nga am. waaw Boy def na neuf combat. combat ñaata victoire. def six victoire. def waaw di ko sant yàlla bu baax a baax a baax. kan nga daan. ñu ma daan am na ñu ma ci fàtte nag ku ci mel ne ay Famara Coor bu Jaxaay. Mhm. Dame Ndiaye boo yëmbal. Mhm. kuy quatre-vingt-quinze. comprendre nga am na ñeneen. Mhm. ay Pape Thiam. comprendre nga. kan moo la daan. waaw Mamor bu Faas daan na ma. Cheikh Super Jamono ak euh, nu mu tuddati Sita bu Saloum. Ah. yow ñi nga daan kenn xamu leen. ñi ma daan waa kenn xamu leen sant yàlla comme ko yàlla mu ngi may dimbali ba nit ñaa ngi may ràññee rek sant kon. Hmm. ah yow jàmbar nga mais sant mais sama gars yi dama bëgg ñu jël leen. ku ci mel ne ay Ousseynou Mane. sa gars yi leen jël yow la ñuy waxtaan bu ñu paree ñoom ñëpp dinañ ko xam. mbëri waxal baa leen tàppet mhm. ku ci mel ne ay booy Balde yaa ngi koy gis nii mu ngi toog. daa mer <laughs> comprendre nga <laughs> sama njaago bi sama njaago or bi. dañ ko war a jël barki Serigne Touba Zil doomu géwél bi gis nga woon ni mu toog nii daa dégg ba yàqu barki alxuraanu karim démb la jógee Italie baba eh. ma ko yóbboon waaw gis nga ñàkk caaxaan sa ginnaaw xool ko ñàkk caaxaan bu faalaay ba léegi newoon sa wet mooy ñàkk caaxaan bu faalaay ba léegi gis nga ni mu lay xoolee waaw bu ma ku ne daa am ku da nga am sa Malick Gakou man eh. sama Malick Gakou ngi nii toog <laughs> kii mooy vidéo borom réew mi di ko bëggee di bëggee jabaram bu baax ah. waaw noonu la demee hmm. yee gars yi nañ ñëw jël gars yi ñu bëre làmb ñu làmb lañ am. Mhm. waaw nañ ñëw. Mhm. waaw. jeex na tàgg làmb la ñu am ah wax na dëgg làmb la ñu am na gars yi ñëw tëgg làmb yi gone yi ñëw taxaw bëre parce que tamit gone yi dëggantaan taan li ñu soxla ci làmb dëgg ñoom ñoo koy def bis bu ñu taxawee ci làmb chaque jour dinañu gis ni gone yi li ñu gën soxla ci làmb ñoo koy def dinañu bëree dinañu xeex dinañu def lépp. kon nañu tegg xalé yi ñu bëré té tamit ma ngi lancer ben message stade do ma ko bu ñu mëne dimbali ñu bañu lamb parce que li fa am ñaaw na tam metti na trop trop trop parce que état bi dem na ba nit ñi bi ñu màbbee jëm ben côté miir bi dafa daanu té lolu worul lu nekk man na ci xew am na ñoo xam ñi ngi koy jiñ naan gaay dañ doon def violence nangam nangam mais du won violence lamb ju jeex la nit ñi doon wacc di ñibi mais bi wacc di ñibi ni mu démé nonu la loolu kese la ñu fa gis grenade lacrymogène yi bëri na fa ci biti torop torop torop torop te Médina kenn ku nekk xam na ni mu mel ak rue onze bi noonu tamit ay nit nekk fa di liggéey alkaati yi di sànni ay lacrymogène ci diggante boobu metti na torop ci waa Médina kon nañuy jël làmb yëpp ñu di ko tëgg arène nationale pour man suma sañoon loolu mooy am wala ñu koy tëgg ci yeneen côté yi yi nga xam ne ni bokkul ak Médina si biir dëkk bi metti na torop ci ñoom sama gars loolu benn message la woon Boy Jules gisee loolu. dara xew ci làmb ñu ne mbëri ñoo ko def wala supporters yi ñoo ko def fekk ne loolu amul xam nga ñun nañ ci dimbali rek comme que tëgg ibil nañu estat defal ñu arène nationale kay nañu fay tëgg làmb comme que amul fay kay nañ fay tëgg làmb te yàlla tax moo gën ñu yóbbu mbëri ba fële am nañ suñu estat loolu lañ doon jooy léegi la ngay uti ci estat ay estat tuddu bayal suñu estat bi ñu lamb ngemb bo jek ñew mo gëna sañ sé ci ngemb li wax deug ah tamit nañu dimbalé lool tamit dañu dimbalé lool té estat bi amna parking bu yaatu espace bi yaatu na ben nit mënu fa def la luy déborder kon ben instant buñ doon tegg ci estat bobu yaakar na ni moy tané mais ibamar ak ni mur bi daano xalé gañu ci loolu lan nga ko nan nga koy yégué en tant que mbeur non manam lool non wax deug yalla nit do ma ram du ko rafetlu dañuy maslawu ñi nga xam masawu ñi nga xam ni tay jini lolu amna ñu budé amul ne ñum ci gañ dañ leen massaw comprendre nga bu dee am na ay blessures ñu ngi leen di massa bu baax a baax comprendre pour gars yi tamit ñu gën a xool parce que stade boobu du tay barki démb la mhm. stade boobu yàgg na mhm. comprendre nga kon nañ ko xoolaat mhm. jéem a xool luñ koy defaree bu fekkee tamit mën nañ ko éviter tamit defaraat ko bàyyi ko an handball moo gën quoi ñu bàyyi ko comme que ñun am nañ suñu stade wax dëgg yàlla waaw yàlla baax na jeex na tàkk Zil Mbaye ba Zil ci loo ne xamoon naa ni ma jël <laughs> nu may def ba duma la jël moo xamoon naa ne maa ngi nii maa ngi sant yàlla bu baax maa ngi sant maa ngi sant yàlla bu baax. siyaaram magal lépp jàpp taw tey ñu ñëw seet si sa doom day nga ñëw gunge si ko ci bis bi tamit ah mu ñëw nekk ci waajtaay combat. waaw Boy Dil suñu grand la suñu xarit la suñu mag la wax dëgg fa yàlla moomee combat moom ñun ñëpp a si war a taxaw équipe bi yëpp a ngi nii moom wax dëgg fa yàlla équipe ay xale rek a fi nekk. ben pané wo fi ay xalé fi né di dan doole di liggéey wa yalla suñu borom diñ fi tural ñam ndam nak di ñaanal suñu borom saison bi ñu jëmat yalla défar ci jamm ak salam comme ñu ko defoon bi passé dama bëgg lancer ben appel na quoi booy nañ ñëw ñu bëre sawaay boy na ñëw ñu bëré quoi depuis combat ñaamu ndaw ba légui ak rëm mu ma am combat loolu du yoon boy ko wax zil mbay boy nan no booy bi nii mais lan la. benn ko mais kër géwél bi lañ ragal quoi géwél bi benn combat lam benn takkusaan mu daan si ñaari yoon looloo leen di rey fu nii. <laughs> mais kenn defu ko mbër bu mag sax defu ko fi mais dañuy wax ne dëgg li ma fi def kenn defu ko fi kooku amoon na quatre victoire. Hmm. ma ñëw sama premier combat ma daan ko kon cinq victoire laa toogee fu mu nii gars yi nañ <laughs> deux fois la ko mi six. léegi na ngay nangu victoire jambour tek sa boss quoi. non man boy la bëgg ñu bëré euh. boy bari nañ wax. booy yi kan ak kan bëgg ko si koo cinq avant duguna ci ay kër jambour boy ne duñ bëré ta sama naataangoo ngol su len ñom ñoom suñ ma bañul man waru ma len bañ mais dañuy xamni buñ bëré buñ bëré barki serigne Bamba gisu garaw euh. waaw gan ak gan bari nañ booy sama morom na ñooñu bëri rek. ay say morom. Ah, a ragal. ah fii koo fi tudd mu naan damaa liggéey. ay ban ma fi kenn. ah da ngaa tapet kon waaye nga soxla. waaye daal moom. Ah. ku si lekk sama avance. Ah. ku ko si lekk. yow. barki Sëriñ Saliou di nga xam ne taalibe Sëriñ Saliou nga ko sekkal géwal pire. <laughs> waaw ñun ñun du leen ragal de. yëfu géwal lay def di leen waaxu ma ngeen jël avance bi ah, day def fi yëfu géwal di leen jéem a waaxu bu leen ko ragal jël leen avance. yëfu géwal lay def ba ci biir géew ba. mën ni la jikoy mbër. <laughs> aja Zil Mbaye Zil Mbaye ndaanaan baa ngi noonu ah kii. naka mu ci loolu sant ba bàyyi leen ci ñu jàmm ba tey Zil di bëre. ñu ah. nekk ci waajtaay bi nii ñu gis la yow ngay doom ndayam ah. ñëw teewle ko en tant que doomu Pikine Falaye Balde. naka nga ko gungee ak naka ngeen di waajee làmb ji. moom ji la ci ñaari caaxaan ci moom la jógee waaw parce que da ko gisul ci man d' waaw mais lépp lu muy wax ci moom la nekk quoi. Mhm. borom xol bu naas la xam nga bu jàppee dañuy jàpp. Mhm. ak nu mu mën di demee mhm. waaw. ci bépp côté nag man moom wax dama ko manewul quoi. Mhm. waaw moo waral ñàkk a caaxaan bi. Mhm. sama damay jëf quoi. Mhm. buñ ci tolloo nag dinañ ko def quoi. mais fi mu ne dañuy doog a door quoi. waaw léegi bëreegoo euh, laa doon bëre quoi. man waa Joal la maa ngi bëggee waa Joal yëpp. waaw rawatina suma koñ. nga xam ne su ma jógee ñëpp jóg. di bëggee wa Ngéyeen. waa Ndianda euh, waa Ndofane. ak waa Fajut. ak waa Fadial mm-hmm. waa Léona mm-hmm. waa Diofior mm-hmm. maa ngi lim petit ko bépp di leen bëggee di leen. léegi yow koo bëgg a bëreel pour l'instant. pour l'instant. Ah. Balla ne ñoo ñu bëre. Balla Gaye ah, booy nag loolu daa ëpp waaye. Hmm? Balla Gaye daa ëpp ci yow. Balla Gaye kon na njaago bi ñoo ñu bëre tanal xalé yi franc na ñoo ñu bëre franc wa ci yanam franc mu ngi lay dégg franc ñaaki jaaxaan yow lay wo tamit yaak balagay numéro 2 xol leen yeen ñaar ku ci gëna a simple rek ngeen ñëw jox ko <laughs> aja sama gaay tay nak may ni di jaakarlo kan hmm, Vito Vito num tudati malik gako bu Boy Zila maa lay ziar kan ñi ngi ziar sa naga mu ci loo ne sant nañu ba alhamdullilah eh tay malik Gakou bi tamit ha zil nek ci wajjahi combat nga ñew gunge ko fi ni ànd nga Pikine video bal de vidéo vidéo no dundé lolu noo koy wañ wa mom dafa bar bar ki ñun rek mal Gakou jàpp naa na ku ne ko waaye mais sama way depuis depuis depuis gone ba tay wax deug yalla nek ku bax mom mën na ne bu muy mbapat ba lay fekk premier combat sama daan xaw ma ko combat ba deuxième combat xaw ma troisième ba pat sama mag la ko bëreel boobu ba léegi fii la ma fekk wax dëgg yàlla ñu koy ànd mu nekk nit ku baax par entraînement rek laa ko mos a xamee dëgg yàlla lim naan la moom entraînement mooy liggéeyam loolu mën naa koo seedeel parce que à chaque fois heure boo xoolee maa ngi entraînement dem marché entraînement ba léegi entraînement rek waaw moom daal li ma koy ñaanal mooy yàlla may ko wér gu yaram mu fi mu teg tànkam foofu la. entraîne rek mbër amul leneen. ajab gàggu déggoo de <laughs> Malick gàggu bàyyi. dafa am ñetti grammes yoo xam ñaari ñetti grammes sax yoo xam ni ñoom samay samay gaañ lañ ku ci mel ni Abdou Samb. Mhm. comprendre nga Abdou Samb ak Pape Ndaw Mara Ndiaye xam di ñaanal seen papa tamit. ba Cheikh mhm. xam nga Cheikh Ndiaye maa ngi koy bu baax tan satu ñoom tànjoobu ñoom ñëpp sama mhm. sama fils Xaadim Ndiaye maa ngi koy bégee bu baax bu baax waaw mhm. ah. daal ma jox sa gaan booy balde bi balde balde moom nee na daa daa xiif gars yi te moom xamul ni day bandi bandi lu gars yi ragaluñ ko ci loo ne non pël bi lu ragal ginnaaw mu sant yàlla julli seen tamit di sant sama ñaari waajur waaw di sant waa Pikine yëpp waaw di sant waa Kolda fu ma jógee sama cosaan waaw maa ngi sant waa Kolda ñëpp maa ngi leen sant waaw di sant sama kër maam yi kër Fodé Doussouba kër Faalay Bale yëpp maa ngi leen sant. tey ngeen ñëw di waajal Boy Jules bu nekk ci waajtaayu combat du ma ne sax Boy Jules dama naan waa Pikine Falaye Baldé gi yëpp ñëw di waaj naka ngeen di waajee combat boobu noonu fourrière mi nar a fourrière sa waay. non loolu lu sax sa ndaanaan la barki Seydina am ndaanaan la balaa ngeen di xam ne ndaanaan la arbitre sifflé. Hmm. si ana yow looy xaar. kan man ah gars yi nañ ñoo ñu bëri rek. ñan la. man moom damay lim tur Youssou Ndour bu lebu su ñëwee dañuy bëre. benn ba ak kii ni fils de max. Ah. waaw man ak mooy booy booy saf rek nga fi wax waxal lu wuy lu métti laay wëri moom. Ah. barke Serigne Ndao. ñeme nga lu xotteeku de. non man ragaluma loolu. Ah. man bël laa. ah waaw baax na. Mhm. yaa ngi yaa ngi engagé gars yu bëri doole te soxor tamit ah. <laughs> sama coach ah may jàpp ci Zil. tey gars yi waxtaan nañoo ak ñoom tamit ci yow ah kontaan bu baax a baax a baax sama or bi Eh, waaw njaago or baa ngi ah, noonu <laughs> or baa ngi noonu <laughs> eh, or sil ma xool la geen <laughs> ñëw njaago or or baa ngi nii ñoo war ñëw ñu bëri nag booy ñoo war a bàyyi ndellu bi ñuy ndellu si écran yi ah. war ñëw bëri si booy bu leen caméra yi tiim ak micro yi nii dañuy ndellu mais ñemewuñ ah. kuñ si jox amaatu fee waat salfalaay rek gars yi daw hmm. te loolu du yoon du yoon gay yow koy waaye ko ko ko koo bëgg bëreel yow. kan man ay amet la gros da ngi fi. booyoo noonu yëpp ay naataangoo lañ. booyoo noonu nga fidde ay amet la ay franc mbër billaahi. booyoo noonu yëpp samay adversaire lañ. mais bu ngeen man bëri naa waaye adversaire si làmb ji. lu tax ngeen ëppal la ak yéen tamit. ëppal du si question ëppal sax ñun xam rek ñu ngi internet. yaa ngi gën a xam ki benn combat boo bëlee gënul gënul top 5. billaahi bëri benn combat di laaj ak ba léegi gënul top mais mais mais laamu ji laamu ji léegi nekkatul ay kii yu palmarès yooyu noonu de. Ah. waaw laamu <laughs> ji mbooloo la rek. gars di la jay ngay bandi bandi lu boo duggee arène bi xam ne lépp du du yombee noonu ci yow de. non arène moo gën a yomb entraînement gën a métti lool. Hmm. liñ dil di dajloo moo gën a biir arène ba billaa wallaay. gaa da war a ñëw ñu bëree. jeex na tàgg na gaa yi ñëw ñu bëree ah loolu la njaago or bi wax tamit na gaa yi ñëw wax nañ dëgg bu baax a baax na xale yi ñëw bëree moo gën kenn ku nekk di daw ak delloo avance bi di wéeri wéeri tamit ah kenn ku nekk xam nga ki nga war a bëreel dawal nga jëli ko booy Jules émission tirage en fin looy wax. waaw damay santal yàlla bu baax. di waxaat jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba di sant sama Serigne si Cheikh Fall Mbawar di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi bas kanam. Mm-hmm. di ñaanal sunu kilifa sunu xama sunu xalifa suñu doxaa. di koy ñaanal bu baax moom it. di sant xama Euh, sëñ Abdou Karim Mbacke Bari ñu ngi koy ñaanal bu baax suñu kilifa moom it. comprendre nga di sant képp ku nekk Touba rek. ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax ndigal ndigal ndigal Diallo ñu ngi koy sant. Mm-hmm. waaw waa njabootu suñ seen ndigal gi yëpp. Mm-hmm. suñu Cheikh Fall Baye góor gi yëpp ñu ngi leen di bu baax a baax a baax. di la ñaanal jàmm di la bëggee yewit di sant sama waa koñ waa ikri fàllaay yëpp maa leen di ñaanal mhm. ñaam ndam yàlla yàlla defal leen ndam ñoom ñëpp mhm. sama waa koñ mhm. maire yi paa yi booy yi aw ma seen fay maa leen di sant bu baax a baax di leen wax ne lamb ji nag seen lamb la waa ma gaa gaay ndax gaay bañ bañ fourrière fourrière ñooñu même bu ma leen woowul sax dafa rafet moo woo leen même bu ma leen woowul sax dañuy ñëw parce que ñoom laa am comprendre nga ñoom Assane waa xam nga mécanicien yi ñoom caam gaa yi yëpp dawalkatu sareet yeeg xam nga sàcc yeeg gainsman yeeg ñëpp ñu ngi leen di woo comprendre nga bàyyiwuñ kenn na ñëpp ñëw. gis naa gainsman bu yàq sa combat bi passé. <laughs> waaw waaw ñun toj fa mbaar yi. waaw ñun ñëpp ay gainsman la ñun ñëpp ay gainsman la naaj comprendre nga di sant waa Marzinc buuse yi. ñu ngi leen di sant bu baax a baax da baax jóob maa ngi koy bëggee Fallou sama xam nga sama waa staff Fallou Djili Diouf di la ñaanal bu baax. jili moom dama suba laa fa war dem day tudd sama kilifa la koo xam moo tax mooy dund làmb tey jii nii. Mm-hmm. di ko ñaanal bu baax yàlla na doom ji xam nga dund ba am ndaay ak baay ci barke Cheikh Rafal. Mm-hmm. sondeel ko su ñu ngi koy bëggee baax moom it. billaahi wallaahi amuñu fayam Cheikh suñu kot su moom it ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax. Mm-hmm. fàllu ñu koy jaale tamit yaayam mi nga xam ne dafa génn àdduna di ko yàlla ko yàlla xaaree aljana ci barke Seydina Mohamed. di sandaal ñëpp Père Malaw Malaw Seras moom it koo amuñu fayam koku mom wax deug yalla ñun amuñu fayam dañuy ñaan yalla yalla defal ko jamm amu balde momit nonu barke alxuraanu karim ñun ay mag man ay mag yu bax la ñu am ñun ñoo gën mag ci aduna mais yalla ñu ko yalla defal defal leen jamm ñomit xamal defal nu tawfiq ci barke sayyidna muhammad di wo wa pigine yep wa Ekiti Fall la yëpp képp ku nekk pigine am combat ñu lay ñaan yalla may la ndam ku ci melni ni Boy Niang yeneen gaa ñu leen di bëggee bu baax baax baax laay Bruce Lee sama fils yàlla ko yalla may ndam gaa yep ma ngi leen di bëggee waaw jaa ngeen jëf jeex na tàkk kontaan nañu bu baax a baax a baax ci ñëw janoog ki nga xam ne nii mooy ndaanaan bi tamit ah, mooy Boy Jules ñëwoon tey fekk si ko kontaan nañ ci moom trop kontaan ci képp nit ku dëkk Pikine tamit ah di kontaan ci képp koo xam ne nii yaa ngi dund làmb tamit ah Ablaye Kébé la ci caméra ci mic bi Modou Kane la ci caméra bi ah ànd ak sama Cissé soxna Diarra koy ziar bu baax a baax a baax ah bu bëri wax yaa ma ko gën a xam nag mooy loolu émission bi nag dafa am ñu ma koy may tey sama doomi boobu ji laa koy may faatu ah. Fatou Gilaay ma nga ba Thiès moom laa koy may bu baax a sama sama fils ma xam nga Fat Diallo. waaw bëggeel ma ko bu baax a baax kooku sama lépp la sama fils la. Mhm. yee yaa moom émission bi. Mhm. émission bi nag tey sama doom yaay yëpp laa ko may tamit ah bàyyiwuma kenn di ko wax Baye Ndiaye Youssou Tougal Ablaye Bob di ko may Sidi di ko may sama gaay yëpp bàyyiwuma kenn kenn ma fi nekkee di lim du ma juum dama dul matal tamit ah mais sama gaay yëpp maa ngi leen koy may bu baax a baax sama doomi bopp ji nag du ma ko fàtte Fatou Galaye ah mais du fàtte sama série bopp tamit du ko fàtte benn yoon moom su ko waxee day daal di xam xam boppam mon amour moo préféré tamit ah bul fàtte ne sama ñaari doomi jigéen yi bébé Rahma ak Issa maa ngi leen di ziar bu baax a baax di leen ñaanal jàmm te naan leen jàmm ci kaw jàmm ci la lépp xaj yàlla muy borom jàmm te moom jàmm ku mu defal jàmm nga am jàmm yàlla nañu defal jàmm defal ko askanu Sénégal gi yëpp jaa ngeen jëf Modou Kane merci beaucoup taaru làmb la woon aja jaajëf peace and love